jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy émission boo xam ne samedi bu jot lay am bu 15 jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité euh, Abdoulaye Ndao Abdoulaye Ndao nag bokk ci parti fépp taw Tawféex moom moo jiite euh, kuréel gi nga xam ne moo ëmb cadre yi Abdoulaye Ndao ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf Abdou Khadre Seck. maa ngi lay nuyu di la sant di gërëm ci sa invitation euh, di nuyu également seen auditeur et auditrices du rajo Rewmi FM di nuyu également tous les Sénégalais di nuyu tous les militants et sympathisants di parti fépp Tawfekh. Euh, Abdoulaye Ndao yow yaa jiite cadre euh, parti fépp Fepp lu ngeen bëgg a wax foofu lan ngeen abrégé foofu. jërëjëf euh, Abdoulaye Ndao je suis le responsable des des cadres euh, du parti Fepp Tawfekh je rappelle que je suis ingénieur agroéconomiste euh, Fepp Tawfekh mooy parti bi ñu sos ci octobre deux mille vingt deux lañ def assemblée générale constitutive parti bi jël Cheikh Dieng def ko njiit di docteur Cheikh Dieng Fepp Tawfekh nag mooy fraternité et éthique. pour le progrès et la prospérité. loolu mooy fépp. loolu mooy fépp. bi mooy. fraternité. E bi. et mhm. pour le progrès et la prospérité. loolu mooy fépp. mooy fépp tawféex. Mhm. lu ngeen jublu ci euh, fépp tawféex. lu ñu ci fépp mooy euh, un Sénégal euh, de progrès un Sénégal où la justice sociale est mise en avant. également un Sénégal euh, où ce sera la prospérité qui sera partagée loolu la ñu jublu ci fépp tawféex ànd ceeg euh, sénégalais yi yi nekk au niveau national dans les quarante six département je rappelle que le parti fépp tawféex implanté wu na ci quarante six département du Sénégal également ci diaspora fépp tawféex également mi ngi implanté ay cellules donc di wax ni à ce jour. Euh, dans tous les départements fépp Tawfekh taxaw na fa ñu ngi liggéey et on a lancé le processus de vente des quatre euh, de membre du parti fépp Tawfekh tey ci tey prési euh, président parti bi docteur Cheikh Dieng sénégalais yi xam nañ ko mu ne woon le maire de Djiddah Thiaroye Kaw xam nañ ko également sur le plan politique parce que capitalisé na plus d'une quinzaine d'années d'expérience politique ci parti démocratique sénégalais donc ci octobre deux mille vingt deux lañ taxawal suñu parti bi. mais est-ce que du euh, docteur Seye Dieng dafa génn PDS googu euh, mer dem taxawal parti boppam ndax dañu faral di gis ci ko ci leader politique yu bëree bari bu ñu nekkee ci benn parti politique bu ñu demee ba jóge fa mer taxawal seen parti est-ce que du loolu moo ko poussé mu ngi créer parti. bon li may wax rek mooy suñu parti boo déggee ñu leen fépp fraternité et éthique pour le progrès. Cheikh Dieng ku ne xam ne ko sur le plan politique Sénégal bokk na ci les cadres du parti démocratique sénégal yi nga xamante ni bi PDS ndërmeeloo ci nguur gi 2012 ba 2022 ma nga fa jógewu fa malgré que euh, beaucoup de tentatives def nañ ko pour jële ko ci parti bi pour mu dem transhumé Cheikh Dieng a préféré moom garder son honorabilité et sa dignité pour être auprès de son ex secrétaire général Abdoulaye Wade donc pour wax la ni Cheikh Dieng tey du bàyyi ba 2022 mu wóor ñu on est à un an euh, du changement de régime muy génn pour dem def transhumance kooku xel xalaatu ko ça a été vraiment une demande des militants et des sympathisants euh, de Cheikh Dieng ci la jël décision créer son parti politique ànd ci ñun ñu taxaw pour demander le suffrage des Sénégalais. d'accord euh, danañ si ñëw Abdoulaye ndaw ndax ñu baree bari dañuy créer parti politique mais duñu mos a dem élection présidentielle ba pare si ay candidat si ay coalition aussi fi la ñuy faral di bokk euh, dinañu si ñëw ak yéen seen parti bi ba xam ndax dina mel ni euh, parti yu baree bari ñoo xam ne nañu créer parti pour créer parti. ak seen programme aussi bu dee am ngeen programme boo xam ne dina mën a convaincre askanu Sénégal. Euh, premier point bi ñu wax ci actualité dañu gis ne lu jëm ci wàllum justice ci Sénégal euh, ñu bari dañuy ŋàññi justice bi euh, ki si mujj moom mooy sax Ousmane Sonko ba ñu bari di laam-laamee naan nee na bu ko yoon wooloo du wuy ji ci lu jëm ci dossier Adji ñu bari jàpp tamit ne pouvoir exécutif bi dafa dugal loxoom ci justice bi yow ban jàngat nga ci am. waa jërëjëf Abdou Khadre Seck question bi nga posé question bu am solo la muy wàllu justice justice nag dafa nekk ci silaayu réew mi boo xoolee réew yu bari yu ndërmeelu justice bokk na ci ci origine bi li waral réew yu bari yu ndërmeelu c'est parce que les décision de justice yi ñu jël pour la plupart euh, contre des opposants politiques mooy indi yenn jafe-jafe yi maintenant euh, par rapport ak justice de façon globale euh, ñun lecture bi ñu ci am et la lecture bi c'est une lecture même en interne boo xoolee ñuy liggéey ci wàllu justice tout récemment on a vi un juge le juge Dème qui a démissionné et qui a fait dire que la justice est instrumentalisée par l'exécutif donc loolu muy jafe-jafe boo xamante ni c'est au cadre de la justice mu wax ko boo fa jógee nga dem ci union des magistrats du Sénégal avec le euh, président euh, juge Téliko également moom wax na tamit lu mel noonu à travers de nombre communiqués de l'union des magistrats du Sénégal pour wax ni Sénégal la justice est instrumentalisée par l'exécutif léegi ci kaw loolu ñun euh, fépp taw féex on a des mesures fortes alternatives par rapport à ce qui se fait aujourd'hui boo jëlee par exemple ci wàllu euh, au conseil supérieur de la magistrature bi président de la république di diriger loolu dafay influer ci carrière magistrat yi y a de ces magistrats aujourd'hui président bi dafay am influence ñoom. day am influence loolu wax nañ ko euh, euh, juge dem bi ma wax léegi wax na ko Euh, également l'union des magistrats wax nañ ko. Souleymane Téliko jamono ji koy jiite. ex président des des magistrats. voilà donc wax na ko ci jamono jim koy ji koy jiite donc loolu tey boo xoolee ñëpp teg nañ ci seen bët mais maintenant ñun en terme de mesures alternatives bi fépp taw feex ci proposé mooy le président de la république en 2024 warul jiite le haut conseil supérieur de la magistrature waru ko jiite donc. Euh, les magistrats, c'est eux-mêmes qui seront responsables de ce Conseil supérieur de la magistrature. En même temps, on a proposé une ouverture à la société civile pour au moins ñu am une indépendance réelle de la justice noonu lañ ko gisee loolu ci wàllu conseil supérieur de la magistrature. Ah. beneen mesure bu forte bi fépp Tawfekh di proposer mooy le président de la république ne doit plus diriger un parti politique. donc loolu également euh, day euh, montrer vraiment les ruptures yi nga xamante ni moo war a nekk pour que Sénégal su le plan de la justice influence bi ci exécutif doon am doon ci mun am waxuma ne nag magistrat yëpp la parce que y a des magistrats aujourd'hui qui occupent de hautes fonctions internationales waaw mais dañuy wax ne euh, dossier Ousmane Sonko bi moom dafay tuumaal justice bi Euh, même Karim Wade ak euh, euh, Khalifa Sall dañuy wax ne président moo instrumentalisé justice bi maanaam bëri na ay dossiers yoo xam ne ba laalee homme politique dañuy wax ne pouvoir exécutif bi moo si dugal loxoom ndax yow loolu gëm nga loolu. xam nga ñun dañoo dans des économies faibles très fragilisées te justice li ma wax rek dafa nekk vraiment benn axe boo xamante ni cëslaay la pour liy ndërmee réew parce que justice tey mooy mën a indi paix sociale ci dëkk bi. léegi ku mel ni Ousmane Sonko tey euh, ñun euh, waxuñ sax défiance mais c'est un problème de confiance par rapport à la justice parce que li fi xew ci cas Karim Wade ñëpp xam nañ ko malgré les condamnations ses droits civiques perdre na ko ba mënul woon bokk ci élection présidentielle 2019 la même chose arrivé na Khalifa Ababacar Sall ba bokkul ci élection présidentielle 2019 donc tey Ousmane Sonko li mu wootee nee na c'est le droit à la résistance comme li ko constitution bi joxe may ko ko. est que d'accord nga ci. mais loolu constitution moo ko joxe le droit à la résistance boo xoolee tey le cas Pape Alé Niang il a résisté de s'alimenter kooku droit moo ko may la constitution boo xoolee également les syndicats d'enseignants généralement euh, lors des grèves c'est de la résistance et loolu si euh, euh, charte Rewmi moo ko permettre bépp sénégalais bépp citoyen bu gis ni moom ñu ngi koy jaay doole wala ñu koy néewal moo tax tamit ne le cas de Ousmane fi ñu naan fu ndóobin rey sa sa sa sa maam foo gisee lu ñuul di nga daw donc loolu nekk ci li nga xamante ni tey boo gisee mooy le constat que nous avons noté ci wàllu résistance bi muy opérer vis-à-vis uh-huh. euh, de la force politique. d'accord mais résistance boobu Ousmane Sonko woote ak xale yi nga xam ne ñoo ko topp ñenn ñu sax jàpp nañ ne dafa am benn tension politique boo xam ne fi mu ne nii moom mooy euh, moom mooy am Sénégal ba ñu bari sax di wax ne toog waxtaan wala dialogue mënut a ñàkk yow lan moo ci sa position. bon on ne souhaite pas tension am ci je pense que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar war nañ mën a toog ñu teloo si xel yi. ñu xam ni nguur nag moom yàlla moo koy joxe bu jeexee jeex na ñu toog waxtaan je pense que Sénégal on doit fair respirer la démocratie ñu bàyyi liberté égal aux acteurs politiques ku ci ne bu fekkee da ngay laaj réew mi ñu fexe nga bàyyi noo ci participer ba lu yàlla dogal kuy jiite réew mi ëllëg Sénégalais toog ànd ak moom liggéey loolu daal je pense que mooy li war. moom la les hautes autorité du pays war a doxalee pour permettre à Karim Wade permettre tamit à Khalifa Ababacar saal permettre à Ousmane Sonko permettre même au camp d'en face le régime c'est-à-dire ñoom war nañu mën a am seen candidat ñu présenté ko ci élection présidentielle 2024 ñu dem c'est les Sénégalais qui vont élire leur président mmh. après euh, ku jiitu mais mais mais li nga wax ni euh, Abdoulaye Ndao su dee amul ndax jàppoo ne euh, élection dina am ñu éliminer euh, Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi. ah situation bi dana nekk situation bu embarrassante su boobaa. c'est-à-dire. demee ragal dëkk bi nekk sans tissu dessous. lu mën a nekk la. loolu lu mën a nekk la te loolu mënees na cee bañ a yegg. mënees na cee bañ a yegg pour ñu permettre la libre participation de tous les acteurs. politique à l'élection présidentielle de ñun fépp taw féex loolu mooy suñu taxawaay. mais est-ce que passé wuñ fu ñu waroon a négocier euh, fu ñu waroon a waxtaanee ndax passé wuñ ko aussi ndax président Macky Sall événement mars yi kilifa yi waxoon nañ ak moom am lu kilifa yi ñaanoon opposition bi opposition bi bàyyi te président Macky Sall dafa mel ni bàyyiwul ba tey euh, fi mu ŋànkoon est-ce que jàppoo ne dialogue wala fu ñuy waxtaanee passé na. Euh, man je pense le président de la moom tey ba léegi kenn waxu dégg ko mu wax ne day nekk candidat pour les élections. non non waxuma day nekk candidat mais acte yi mu ci kaaw euh, li fi amoon ak ak Ousmane ko booba kilifa yi ñaan nañu. Euh, société civile bi ñaan na Ousmane Sonko ñu bàyyi rassemblement ak manifestation yi nga xam ne moom la ñu dëgmaloon mais bu ñu gisee procès Adji Sarr bi ñu yóbbu chambre criminelle ak mbiri Mame Mbaye Niang xel dafay jàpp ne Ousmane Sonko dañu ko bëgg a ngir mu bokk ci élection présidentielle deux mille deux mille vingt te ñu borom xam-xam yu bari aussi li ñu gis ak li ñu analyser mooy bu ñu ko teree mu bokk ci élection dëkk bi euh, man na am ay jafe-jafe. Euh, man ni ma a rek je reviens toujours au droit à la résistance li. constitution bi may sañ-sañ bépp sénégalais maintenant Ousmane Sonko gis ne ñu ngi koy neewal doole moom jàpp nañ ni dafa war a résister loolu sénégalais yi ànd nañ ci ak moom parce que constitution moo ko permettre maintenant li fi xewoon ba sëriñ ci ñaan ci loolu je pense que euh, Sénégal c'est un pays de paix waaw kilifa diine yi war nañ ci wax euh, artu parce que Euh, fañ jëm nii dafa laaj ay discours ay kàddu yoo xamante yu kilifa diine yi war a wax pour dëkk bi am stabilité c'est extrêmement important ce n'est pas seulement que les acteurs politiques rek ñoom ñoom réew bi dëkk bi am na ci ñoo xamante ni politikuñ mais ci yeneen segment lañ nekk ñooñu également seen kàddu quand même war nañ ko bàyyi xel la société civile euh, les acteurs qui sont Euh, religieux euh, voilà donc euh, les syndicats ñu war a bàyyi xel également ñoom ku ci nekk ci gis-gisam ci xalaatam ci proposion ci li nga xamante ni mooy stabilité réew mi maintenant ci wàllu justice boobu boo xoolee tey en terme de mesures alternatives tey boo xoolee on a constaté que y a une toute puissance des procureurs en terme de mandat de dépôt tey fépp taw fex propose de mettre sur place un juge de liberté. Un juge de liberté qui permettra un peu demain, quand un procureur prend une décision de mandat de dépôt, c'est susceptible de recours. Parce que tey boo xoolee les lieux de la détention sont pleins de personnes ñu fa nekk ñoo xamante ni toog nañ fa cinq ans soog nañ fa dix ans soog nañ fa huit ans kenn àttewu leen. te loolu boo xoolee tey on a même un programme nun pour désemplir le milieu carcéral on a proposé dans notre programme fépp Tawfekh c'est-à-dire on a un programme de agricole. d'accord boo xamante ni dinañ ci dellu si. d'accord danañ si ñëw vraiment de mettre en place des fermes agricoles. de détention. Euh, bul anticiper euh, Abdoulaye Ndao yaa ngi am anticiper ci programme boo xam ne bëgg nañ see wax mais dañu bëgg a euh, wax ci problème mu justice ci réew mi ndax dañu gis ne réew yu nga xam ne ñoo tàkk yépp am problème. affaire élection mooy tax muy tàkk affaire euh, wàllum justice wàllum bëgg a def troisième mandat wala laal constitution bi wala empêcher ay nit pour ñu bokk ci élection léegi fan yi aussi euh, ci benn conseil des ministres président Macky Sall proposé woon ministre la justice ci lu jëm ci benn euh, pour mu xoolal ko ban yoon la mën a jaar pour am amnistie daal ñoo xam ne njort nañu ne li ko tax a jóg mën nañu wax ne André Guémé Karim Wade a Khalifa Sall tey ñu amnistie leen yéen waa parti Tawfekh ndax ànd ngeen ci. ah ñun papa fa parti fépp taw feex lépp luy indi stabilité réew mi ñun ànd nañ ci ñun suñu gis-gis mooy les élections doivent être démocratiques dañoo war a fexe ba bépp sénégalais bu jàpp ni mën naa jiite réew mi bu fekkee candidat la ñu bàyyi ko mu nekk candidat ñun loolu mooy suñu gis-gis muy Khalifa Sall muy Karim wàdd muy keneen ak keneen ku ci ne di Ousmane Sonko la leen war bàyyi ñu participer à ces élections au même titre que Fépp Tawfekh avec le président docteur Cheikh léegi euh, lu jëm ci euh, wàllum processus euh, sànq sax ñoo ngi wax ba junj ko nga ne yow dégg ko président Macky Sall wax ko mais est-ce que tey njortoo ne président Macky Sall dafa bëgg am beneen mandat ndax am na ñoo xam ne jàpp nañ ne nii muy doxalee mooy dafa bëgg a réew mi te moom am na lu leer lu mu ci waxoon ci 2019 ne bu ngeen ma falaatee mooy nekk sama deuxième sama dernier mandat. waaw ñun li ñu constaté mooy suspicion yu jóg ñu ngi wax. ñi ñeen ñi ngi wax dans l'opposition ci nguur yi am na ci ñoo xamante ni jóg nañ ne mooy can mooy seen candidat waaye ci liñ jàpp ñun président de la république moom waxoon na ko fii nee na moom ñaari mandat lay def pare ci te ba tey nii kenn dégg ko mu wax ni day def troisième mandat. mais doxalin bi. non doxalin bi ci li ñuy gis tey na xel mais man ci li ma jàpp. Mm-hmm. gëm naa ni moom. lu def troisième mandat dina vraiment euh, fair de sorte que Sénégalais yi librement acteurs politiques yi ñu war a participer participer gars dem élection parce que Sénégal yemu fi 2024 Sénégal ñu ngi fi je pense que c'est le lieu de faire un appel au président pour que mu xam ni euh, c'est de sa responsabilité pour stabilité réew mi et c'est extrêmement important je mmh. pense que un président de la république c'est pas une fin en soi. d'accord mais mais euh, mais ndaw xam nga tey ki xëy suba euh, yeewu euh, def li war a def génn euh, sol tenue de travail am aw si yoon yi dañuy jàpp ne dafay liggéey mais président Macky Sall tey ay hauts cadres yu nekk ci parti bi ay Mansour Faye ay ministres yoo xam ne yu ko jegal ay ministre Ismaïla Madior Fall. taxaw ne ñoom bu ñu jaayee deux millions de cartes APR dina ñëw imposer seen candidat ndax majorité dafa jàpp ne moom majorité mooy décider en tant que ministre de la justice tey ñuy jege président Macky Sall yëpp di wax ne dafay def candidat dafay ne mooy seen candidat amuñu plan B amuñu plan Z te ku wax ne waroo nekk candidat mu dàq la est-ce que jàppoo kon réellement que président Macky mii dafa am loo xam ne moom la bëgg. je pense que. wala yow loolu lépp le cas du pouvoir dañuy bu noyee. ñu xool ñu utee prox ndool pour jàll. mais tey sénégal yi ma gis nii c'est des sénégalais avertis te tey constitution li mu wax mooy nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs loolu dafa leer. Euh, le ministre de la justice wax na ko répété na ko ci ay vidéo te mm. loolu je pense que sénégalais yëpp. ba ka ca nekk fongo fongo fongo mi ba ka ca nekk dans le Podor à Borobe Jakkal xam ne ni dëgg-dëgg président de la république li constitution bi wax mooy ñaari mandat mm. loolu leer na. Sénégal yi léegi yow nañ ndax les réseau sociaux ku ci ne xam ne tey la la constitution Sénégal wax peut-être y a vingt ans y a trente ans kenn xamul woon lu constitution Sénégal wax ci wàllu mandat mais tey avec les réseaux sociaux Sénégal yi ñëpp yeewu nañ xam nañ ci dëgg-dëgg. Mm-hmm. li nga xamante ni lañ tënk ci charte mi. donc loolu je pense que jarul sax ñu ci gën a enfoncé wu euh, mais li may wax rek mooy parti fépp tawféex euh, dina participer ci élection présidentielle deux mille vingt quatre. bu ngeen amee parrainage. avec docteur Cheikh Dieye. bu ngeen amee parrainage. ñu ngi ci liggéey bi ne xam nga ni tey. mais yombal ngeen parrainage trop docteur Cheikh Dieye les deux dernières du parti démocratique Sénégal mais perte commune am perte fan lay jëlee parrainage docteur Cheikh Dieye ne xam ne Cheikh Dieye. ñàkk jiite Thiaroye n'a pas perdu jiite Thiaroye Kaw il n'a pas perdu le département. moo gagné élection yi. au niveau lo au niveau local bi d'ailleurs même bi ñu demee ci élection législative confirmé na ko c'est l'opposition qui a remporté les sièges de députés du département de Pikine kooku. non mais Cheikh Dieng locale moo nekkoon euh, candidat au niveau départemental Pikine. oui daal di perte. non pertul Cheikh Dieng moo gagné yi. kon lu tax nekkul président conseil départemental de Pikine. mais Cheikh Dieng tey moom boo xoolee def na recours yi war. recours ba mu defee recours yi waar eh, li ko li ko yoon wax ne ko li lay laaj mooy nga dem indil ñu ay PV du camp d'en face. nga dem indil ñu ay PV yi waa APR. yi waa coalition benn bokk at te xamul loolu mënul ne pour mu am ko. donc mu gis ni tey moom seen responsable Cheikh Dieng nekk responsable politique au niveau de la banlieue ñu xam ko fépp ci Sénégal Cheikh Dieng tey. du jël ay jeunes. mais mais grâce à PDS oui du jël ay jeunes banlieue tey ànd ak ñoom pour ànd ak ñoom ñu dem xeex dóorante du ko ci fekk ñun ci lañ toog. jël la pleine conscience ne ko Cheikh dañuy taxawal suñu parti sunu parti pour bokk ci joŋante yi tey Cheikh Dieng tey génn bi mu génn PDS mën naa ne la mais son cycle politique. mais, mais son cycle politique ci PDS dafa bouclé. waaw ah non mais man nga nekk PDS amul génn PDS. xam nga Cheikh Dieng tey li ma lay wax rek mooy Cheikh Dieng ñëwul ex comme ça biir parti démocratique Sénégal Cheikh Dieng c'est par son expertise la ko président Abdoulaye Wade woo ko à ses côtés mu nekk autour du cercle restreint. man nga am man na bañ am base politique. di ko xalaatal man nga am xam-xam te doo am mais dama lay wax tey Cheikh Dieng tey il a Abdoulaye Wade dafa perdre pouvoir 2012 Cheikh Dieng 2014 la nekk maire ji de Thiaroye Kaw. saa bi muy gagné maire ji de Kaw n'a pas été dans le pouvoir il est aussi bëri na ay def loolu. waaw non mais dama lay expliquer tey. Mm-hmm. ku mel ni tey Cheikh Dieng en terme de réalisation dans sa commune à Djiddah Thiaroye Kaw Djiddah Thiaroye Kaw ku nekk xamoon ne tey. c'était vraiment la capitale des inondations au Sénégal perte na mairie bi mais c'est parce que élection yi dafa jaarul yoon ci département Pikine Cheikh Dieng il devrait être aujourd'hui le maire de la ville de Pikine d'accord mais dañ ko néewal doole euh, mhm. d'accord danañ ci ñëw euh, ci ci Cheikh Dieng ak euh, seen parti bi ak nan ngeen def ba am parrainage ndax man jàpp ma ne parrainage aussi dina nekk loo xam ne vraiment la yomb lay doon ci yéen léegi processus électoral bi nga xamante ni tey ndax yéen dal na seen xel yéen opposition bi aussi dañuy gis ne parfois état bi daf leen di nguur gi wala bennoo daf leen di ruube yóbbu leen ci ay mbir yoo xam ne peut-être yéen fa ngeen ni nekk mais lu jëm ci wàllum waxtaanee euh, fichier électoral bi révision liste électorale yi ba léegi amagul aussi xamaguñu ban date le Sénégal di def élection présidentielle te boo xoolee 2010 maanaam 15 mois avant les élections Sénégal yi xamoon nañ ban jour la ñuy def élection 2018 2019 ci 2018 bi xamoon nañ kan lañuy kañ la ñuy def élection présidentielle mais fi toll nii ñuy waxee man ak yow xamaguñ kañ la ñuy def élection présidentielle heure bi daana fekk ñu jàpp ñu jàpp date bi. c'est-à-dire li may wane ni tey a une violation du code électoral tey le code électoral en son article 37 dafa wax ni en son alinéa 1. Mm-hmm. que il est organisé chaque année une révision ordinaire. des listes électorales. Mmh. et là ça part du 1 février au 31 juillet. Mm-hmm. tey boo dégloo également à son article toujours 37 alinéa 5. Mm-hmm. il y a une révision exceptionnelle. qui est prévue en perspective d'une élection comme li nga waxee 2024 élection présidentielle am na. cette année normalement dafa war a am révision exceptionnelle am également une révision ordinaire. Mm-hmm. mais semaine passée lañ jot communiqué bu jóg ministère de l'intérieur. ñu ne en prévision des élections présidentielles on va démarrer une révision exceptionnelle. sans ordinaire sans ordinaire donc loolu pour wan leen y a une violation du code électoral. ngeen bàyyi ngeen bàyyi leen seetaan leen. waaw mais loolu tey je pense que euh, gars ñi bàyyiwuñu leen seetaan leen de je pense que gars ñi ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey. parce que tey boo xoolee euh, la réforme du code électoral c'était depuis 1992 avec. feu juge baa mbay lañ ko mettre en place mu nekk vraiment une réforme salutaire boo xoolee depuis lors euh, depuis 2016 il y a pas eu de révision boo xoolee tey lu mel ni Sénat moom moo am rôle bu bu constater que ni y a une violation du code électoral moom war na mën a saisir pour combler les manquement qui ont été constatés mais malheureusement voilà la situation et est ce qu'elle est donc euh, li ñuy wax mooy il faut que le processus électoral ñu respecte ko parce que c'est un code qui est là je pense que tey war nañu mën a xam ban date exacte la ñu war a def élection présidentielle 2024 donc y a un flou total te flou boobu tey je pense que les autorités war nañu mën a éclairer la lanterne des Sénégalais laa leen régalment également des acteurs politiques parce que li may wax rek dëkk yi tàkk yu bëri processus électoral bu leerul bu lëndëm moo ko indi donc pour man comme y a un code on se doit de le respecter pour que ñu mën a def ay élections yu paisible ay élections yu transparentes parce que les élections transparentes le processus en fait partie donc il faut à un des élections présidentielle ñu war a def révision exceptionnelle war a def également une révision ordinaire pour permettre à ces primo-votants la les jeunes qui n'ont pas de carte d'électeur ñu dem inscrire massivement sur les listes électorales pour war a mën a participer ci élection boo xoolee peut-être li tax ñu salfaañe un peu euh, le processus peut-être gis nañ ni la jeunesse n'est pas favorable au régime c'est peut-être l'occasion ñu xool lu ñu mën a saboter le processus électoral fait de sorte que jeunesse bi bañ a dem bindu ji bañ a am ay carte électeur pour a mën a participer ci élection yi. mu nekk est-ce que loolu bokk na ci démocratie. loolu bokk ci démocratie. yow yow yow euh, à niveau tey ndax gis nga ne démocratie bu Sénégal président Macky Sall daf ko yàq wala lu jëm tamit ci àq ak yelleef doomu aadama yi ndax jàpp nga ne daf ko salfaañee wala ndax jàpp nga ne def na ci ay jéego. man li may wax mooy de 1960 à maintenant. Sénégal la démocratie dañuy wax mais régime bu fi ñëw quand tu en face tes adversaires di ko utiliser justice processus électoral nga xool noo ci mën a defee ay combit de sorte que ñëlee le camp d'en face duñ mën a am dara wala nga jël leen tëj leen ci kaso yi wala nga fexe bañ perdre seen seeni droits civils et politiques démocratie sénégalaise nag pour man dafa war a respirer te li koy respirer mooy ñu am ay njiit yoo xamante ni ñoom ils sont pour le peuple pour xool nu ñu régler jafe-jafe askan wi on peut faire un mandat et faire des choses extraordinaires et partir et permettre à une autre personne war a mën na ñëw jiite réew mi sans problème donc loolu pour man dañu war a bàyyi démocratie sénégalaise mu respirer. mais est président Macky Sall def si nag wax dëgg fa yàlla boo xoolee ci li ñu wax sànq ci wàllu justice ci wàllu processus électoral gis nga ni bu ci jéego amee it jéego yi néew na lool. ci liberté yi. jéego yi néew lool ci liberté yi mooy li may wax rek tey la liberté de la presse tey boo xoolee ku mel ni Papa la ñu yoon dal ci koom ñu fexe ba dootul amati droit à la parole pour wax hmm? donc te mu nekk ay mbir yu métti yoo xamante ni ñu ngi koy teg ay sénégalais. pour man daal euh, c'est le lieu aujourd'hui de faire un appel au président de la République pour mu rétablir la confiance dans ce pays pour mu mën a stabilité la confiance entre acteurs politiques et la confiance également entre sénégalais parce que sénégalais yi. da ko jàpp ne amatuñu confiance ci ah, li ñu gis de loolu la loolu dëkk bi wane pour man nag il a fait deux mandats je pense que en deux mille dafa war a organiser élection librement ku yàlla jox réew mi Sénégal yi ànd ak moom mu liggéey réew mi. est-ce que bu taxawoon na damay bokk ci élection ndax jàpp nga ne Sénégal yi yenn yi danañ ko nangu. non yaakaaruma Sénégal yi nangu ko mais xalaat naa ni moom xalaatul loolu. ñu ñuy ñooy wax ni ci suuf. mais xalaatul loolu mais Macky Sall xam naa ni le président xalaatul loolu. d'accord jërëjëf docteur Abdoulaye Ndao euh, yow yaan jiite euh, cadre yu fraternité euh, éthique ak pour le progrès. et la prospérité di fépp yaa jiite cadre yi yéen euh, da ngeen a bokk ci opposition bu bu nooy bi wala bu radical bi. noo ñun opposition bu radical parce que munoo bàyyi waa moins de deux ans des élections présidentielles ngeen taxawal seen parti bëgg a dem ci opposition bu nooy. Hmm. cest à ñun dañuy taxaw pour deux mille vingt quatre fexe ba docteur Cheikh Dieng dem présidence de la république. on a les moyens pour y mais est-ce que est-ce que euh, nekkul loo xam ne dafa jàmp nag vraiment euh, Abdoulaye naw pour docteur Sadio est-ce que jàmpul diggante bi mu jógee PDS ak léegi est-ce que am na fi toutes les armes pour dem pour dem pour dem réellement ci ay élection présidentielle mais docteur Cheikh Dieng euh, am na maturité politique bi Cheikh il e connu au Sénégal Cheikh Dieng il est connu également de par son expertise di da caare kaw je vous donne un exemple c'était la capitale des inondations. benn pokk la rek. benn pokk la mais Sénégal pour nga bëgg koo mais kaay ma wax la docteur Cheikh tey les deux dernières élections du PDS moo ko organisé il était le secrétaire général chargé des élections au moo organisé les élections locales moo organisé les élections législatives donc ça sur le plan organisation élection Cheikh Dieng yaa ngi ko wax léegi ci wàllu parrainage ñun déjà on y travaille on est en train de vendre nos parti bi on est en train les bases un peu partout sur tout le territoire national également au niveau de la diaspora docteur Cheikh Dieng muy borom xam-xam tey programme bi ñu togg mooy vraiment l'alternative pour une prospérité pour le Sénégal non programme yomb na bind programme. neex bind programme yomb na nag euh, Ablaye. mais xam nga réew mi tey. fii bëri na fi ay borom programme yoo xam ne sénégalais yu bëri xamuñ leen te leer na ma ne ñii ay borom yi xam-xam lañ mais politique dafa am yeneen réalité quand même. am na yeneen réalité mais tey dëkk bi tey coono askan wi jafe-jafe yi dëkk bi am wax nga ko fii tey boo xoolee sénégalais yi tey mënuñ nekk ci dëkk boo xamante ni plus de cinq pour cent de la population. et très jeune ñu nekk ci dëkk boo xamante ni tey boo xoolee on a des ressources en eau de surface am des ressources souterraines abondantes am di soleil en permanence am également des ressources minérales et énergétiques ñu am plus de sept cent dix huit kilomètres de côte poissonneuse au niveau national Sénégal nekk parmi les vingt cinq pays les plus pauvres kooku c'est un paradoxe moo tax loolu fépp taw feex taxaw pour opérer ay rupture yu stratégique ci ci ñetti fànn yi sur le plan économique pour une économie compétitive durable résiliente et inclusive et également un capital humain sain instruit formé ak un Sénégal démocratique et solidaire. Ah voilà bind bi bind bi moom yomb na. bind bi moom yomb na mais jafe ko aussi nekkul lu yomb quand même. non ñun am nañ les moyen politiques. pour jëfe ko parce que tey boo xoolee le programme de fépp tawféex les deux piliers ah. les deux piliers du programme taw feex c'est la justice sociale et le secteur primaire c'est les deux piliers de notre programme en parlant du secteur primaire mënuñ nekk ci dëkk boo xamante ni plus de soixante-dix pour cent de la population vive et dépend de l'agriculture dëkk boo xamante ni boo xoolee sur toutes les productions agricoles on a un déficit muy les céréales mil maïs riz muy les cultures horticoles mu également tout ci qui est et viande la facture d'importation est trop élevée loolu muy nekk loo xamante ni ñun constaté nañ ko gis nañ un chômage grandissant s'il y a trois cent mille demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché il y a que dix pour cent qui sont absorbés et malheureusement la plupart c'est des emplois même précaires aujourd'hui ñun fépp taw feex on a un plan de révolution agricole nationale. waaw mais mais mais mais euh, Abdoulaye Ndao bala ñëw si programme boobu président Macky Sall euh, sànq sax tey rek maa ngi lire benn journal mu ne am na quatre-vingt-cinq milliards bu mu génnee pour ay euh, matériel agricole fan yi aussi Sénégal def nañ fi benn sommet boo xam ne jëm na ci wàllum autosuffisance alimentaire sommet boobu président Macky Sall wax ne. jot na Sénégal moom boppam ci lépp lu muy dundee am autosuffisance alimentaire ndax jàpp nga ne Euh, programme euh, bu président Macky Sall boobu ndax programme la boo xam ne bu mën a bu mën a bu mën a buñ mën a réaliser la. xam nga tey ñëpp xam nañu tey nguur gi dafa lajj sur tous les programmes politique de développement. bu ah jëlee ci wàllu mbay mi tey. nga xamante ni moo nekk euh, vraiment une opportunité pour développer le Sénégal. lu mu si lajjee. ci mbay mi tey yaa ngi wax léegi tracteur. yu war a ñëw pour quatre-vingt-cinq milliards ñaari at ci ginnaaw amoon na fi ay tracteurs yu fi ñëwoon boo jëlee cinq ans en arrière ay tracteurs ñëwoon demal ci vallée du fleuve Sénégal demal Touba demal la zone centre boo demee matériel bi ñu fi doon yëpp ay épave la c'est pas du matériel adapté on nous importe du matériel qui ne pas adapté matériel boo xamante ni amul puissance donc loolu tey bu fekkee da nga bëgg a développer mbay mi chaque deux ans chaque trois ans nga indi un programme de mécanisation boo xamante ni équipement yi ñu indi arrêté léegi ñu indi tracteur sax du ànd ak offset du ànd ak équipement am du ànd ak accessoire am maître bi jël ko tax ko ci buntu këram muy xoolee donc yooyu ay jafe-jafe la c'est parce que choix yi ñuy jël c'est pas des choix stratégiques ñu liñ gëm mooy la le véritable souveraineté alimentaire il faut véritablement de programme euh, ambitieux pour Sénégal mooy lan fépp Tawfekh li mu proposé comme mesure alternative par rapport à ce qui se fait actuellement on est dans un pays où quatre-vingt-quinze pour cent euh, de l'agriculture dépend de la pluie ñu kii ci Sénégal ci fleuve Sénégal sur les eaux souterraines c'est des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau qui sont là-bas que nous dans la mer et des milliards de mètres cubes qui sont au niveau de Maastricht ñu ne dañuy proposer un programme d'aménagement d'un million d'hectares de terre supplémentaire avec des fermes de trois à cinq hectares avec une priorité d'allocation à la jeunesse sur ces fermes li ñu ciy def mooy 200 000 fermes yoo xamante ni dinañ créer d'ici 2029 on va créer 2 millions d'emplois en milieu agricole et rural beneen bi mooy on aura un programme euh, de construction de forages 3000 forages qu'on compte construire Chaque forage va alimenter 100 hectares. donc c' est trois cent mille hectares. Ah, d' accord mais qui sont emblavés mais ndaw euh, programme agriculture bu régime bi euh, yan lan nga jàpp ne moom def na ko fi quand même. xanaa doon na ma def fi dara depuis 2012 ba léegi. mais wax ma fii Sénégal ban xeetu mbay la ñuy mbay fii dundee ko ñun kese ñun fii lépp li ñuy dundee fii la plupart bitim réew la jógee ceeb bi gën a élémentaire basique. Mhm. ceeb dañ koy importer c' est deux cent milliards d' importation de riz. on nous a parlé du programme en Henri Penard, mais depuis 10 ans, il n'y a résultat. Demal dans la vallée du fleuve, les superficies sont là-bas, les terres sont là-bas, kenn bayul béykat yi am nañ bor fayuñ donc c'est problématique. d'accord léegi léegi euh, dañu gis ne aussi euh, Sonacos ñoom dañu nekk ci euh, ay jafe-jafe amuñu xaalis bu ñu jëndee gerte beneen bi ñoom nee nañu dañu am ay concurrents mooy chinois yi. ñu gis ne Sénégal liñ fiy bàyyi kus néew kus gerte chinois yi ñoo ngi koy jël ak indien yi du ko yóbbu lan la mën a indil Sénégal ni jafeñ-jafeñ ak euh, lan nga jàpp ne moo ko waral. xam nga loolu mooy lajj bi ma la rek ci wàllu échec politique agricole yi bu ñu demee ba signé ay convention avec la Chine pour exporter suñu arachide bi gerte gi nga xamante ni baykatu sénégalais yi ñoo koy bay semence bi ñu jël àll réew mi subventionné ko. matériel bi ñu jël alal réew mi subventionné ko engrais bi ñu jël alal réew mi subventionné ko ñu dem ba chinois yi ñëw jël suñu gerte yóbbu bitim réew seen ñëw fii déjà boo xoolee ce que ça coûte en terme de réservation d'hôtel de billets d'avion ils viennent ils achètent l'arachide à un prix meilleur que le prix proposé par la Sonacos nga war xam ni y'a problème ñu jël gerte gi transporter ko fay tout ce qui est taxe droit de douane tout yóbbu ko seeni rée transformé ko jël ko di ko jaay Amérique di ko jaay Europe à cinq euros le litre ça fait presque trois mille francs le litre d'arachide mhm. li ko waral mooy te les Chinois profitent aux subvention de l'État du Sénégal alors que amuñ ci droit tey Sénégalais tey malheureusement on n'a pas un vrai programme d'industrialisation agricole dañu waxante dëgg il faut que qu'on un vrai programme de d'industrialisation agricole loolu la taw Tawfekh proposé on va développer une énergie productive faire de sorte que Sénégal dans chaque département agricole ñu am une industrie agricole adaptée forte capable d'absorber la production et de la transformer au niveau local ça va créer de la valeur ajoutée créer des emplois et permettre également ci Sénégalais yi nga xamante ni dañuy exporter l'huile d'arachide war ko mën a exporté au moins ñu mën a am ay entrées de devises. d'accord léegi euh, docteur euh, euh, Abdoulaye Ndao tey dafa am ñu bari ñoo wax ne président Macky Sall def na ay réalisation ay terre ak ay stade yooyu mais ñu bari dañu jàppoon ne li gën a jàmp mooy production nationale maanaam Sénégal moom boppam ci ci li ci li nga xam ne tey moom lay dundee ba pare Sénégal def benn politique industrie boo xam ne jàpp nañ ne réew bu nekk il faut nga defar ay industrie ngir mën a développer mais dañuy wax ne problème bi fi muy posé wu mooy ay FMI banque mondiale yeneen bailleurs yi nga xam ne bu ñu jox Sénégal xaalis euh, parfois ñoo koy proposé euh, fi nga xam ne fi lay dugal xaalis bi. déedéet man dama naan sax euh, dañ lay proposé bu amul vision ñu propose la vision mais tey tey bu jëlee mel ni programme mel fépp Tawfekh ñun dañoo gëm ni y plus important et plus économique que la terre tey bu ñu jëloon tey. Euh, li ñu def ci terre bi mille milliards à peu près mais mille milliards on aurait pu construire quarante forages par département tey boo xoolee terre bi la plupart ñi emprunté terre bi ñëw nee nañ soixante dix mille personnes ñi emprunté terre bi par jour mais boo jëlee quatre vingt pour cent yi il travaillent dans l' économie informelle c' est des artisans aujourd'hui fépp taw feex li ñu gëm mooy il faut une révolution agricole nationale développer l'agriculture en milieu rural créer deux millions d'emplois dina désengorger Dakar savez kon population sénégalaise d'ici deux mille cinquante dans vingt sept ans la population sénégalaise day doubler mm-hmm. on sera à trente quatre millions d'habitants trente quatre millions d'habitants ba jamono yi nii amuñ politique agricole bu pertinente bu ñu mën a permettre sax ñu mën a lekk ceeb bu ñu bay y problème le programme de révolution agricole que nous proposons à travers le projet Fépp Tawfekh fraternité éthique pour le progrès et la prospérité dirigé par docteur Cheikh Dieng mmh. c'est un programme alternatif pour développer les secteurs agricoles parce que xam nañ ni secteur agriculture ku ko développer moom mooy indi développement réew mi d'accord il faut ñu def des ressources mmh. beaucoup de ressources dans le secteur agricole mhm. accompagner le conseil agricole et rural accompagner la recherche faire de sorte que les femmes disposent de terres. On va créer vraiment un projet d'entrepreneuriat rural porté par les femmes euh, pour que jigéen ñi war a mën a yëngu ci mbay war a mën a yëngu dans les transformations des produit agricoles. Et là, c'est vraiment une industrialisation adaptée au niveau de chaque département. pour développer les chaînes développeurs agricoles. d' accord euh, jërëjëf euh, Abdoulaye Ndao mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM léegi euh, li ñu wax mooy dañu gis ne nguur gi daf ñu digoon année 2023 année sociale mais deux 2023 bi gis nañ ne njëg yu bëree bëri dafa yokk lan nga jàpp ne moo ko yokk ak ndax mi ndax dina yomb. Sénégal wàññi ko ndax Sénégal aussi dañuy faral di wax ne li mu am ci ay bor dafa bëri ak bor yooyu tamit lan nga jàpp ne moo tax bor yi bor yi di gën a bëri. bon li li may wax ci ci ci ci ci mbir moomu mooy te ñëpp xam nañ ni austérité denrée bi c'est une conséquence économique mondiale. Mm -hmm. également y Euh, événements euh, qui ont impacté boo xoolee mooy le coût de le gaz le pétrole yëpp impacté na également la hausse prix maintenant euh, boo xoolee ñiy ay denrées bitim réew ñooñu boo xoolee dëgg fa yàlla amul benn subvention bu ñuy recevoir donc ñooñu tey sur le marché munoo dem jëndee juróom ñëw jaayee ñaar dërëm wala nga jaayee ñett dërëm donc tey difficilement ñoom jël lañ ay mesures pour appliquer ko mais ce sera extrêmement difficile parce que si nit ki mënul jënd jaay di perte ça c'est une réalité mhm. c'est pour vous dire que il faut qu'on ait une nouvelle réorientation ñu fexe ba lépp li nga xamante ni ñu ngi koy jënd jëy bitim réew te sénégalais am suuf si am potentiel ci wàllu ndox pour ñu mën ko béyee fii ñu bàyyi ko fii Sénégalais yi jënd ko ci njëg loo xamante ni dana yomb su boobaa liñ naan panier ménagère bi njëglu du yéeg dana wàññeeku. ba Sénégalais bu ne war a mën a dund. xanaa yéen seen programme yëpp mbay la. mais suñu programme lépp du mbay. maanaam pour développer Sénégal. waaw pour développer Sénégal dañoo gis ne mbay mi mooy cëslaay. seen option un mbay la. suñu option mbay la option de c'est la gouvernance économique du pays. mbay le plan de la justice également. non non non non justice bi. Euh, mais mbay la mbay euh, da ngeen a xalaat ne yéen mbay ci la bokk léegi fan ngeen mbay moom ngeen def option léegi. ñun mbay mooy suñu option également beneen bi mooy euh, sur le plan de la de de du capital humain ñun li ñu visé mooy bu ñu jëlee par exemple secteur bu mel ni éducation éducation ñun gis nañu tey dans l' il faut ñu fexe ba développer li naan l'enseignement coranique et l'enseignement des langues nationales ci sunu écoles yi école yi nga xamante ni dañ ko tabax ci suñu subvention waruñ mën a jël enseignement français bi rek prioriser ko. waaw waaw mais Ablaye man programme pour développer pour le développement du pays maanaam programme agriculture élevage euh, ndax même jàpp nañu ne aussi programme bu jëm ci wàllum transparence ci wàllu pêche par exemple xam nga wax naa ne tey on a treize euh, on a combien on a. plus de sept cent kilomètres de côte plus de sept cent de côte. Mhm. cent kilomètres oui de côte cent kilomètres de côte tey boo xoolee géej gi étranger yi lañ ko jox fépp taw fépp li ñu proposé mooy fexe ba géej gi ñu nangu ko ci étranger yi jox ko pêcheurs yi. léegi léegi ban programme ngeen am ci Sénégal bàyyi leb bi muy leb wala buy leb aussi euh, lu néew lay leb bañ a jël budget boo xam ne cent pour cent wala la ci ëpp lépp ci leb ngeen ko teg. yéen yéen nan ngeen def maanaam yéen ban programme ngeen am ci leb ndax Sénégal ñu dañuy gis ne budget bi lu ci ëpp dañuy leb dañ koy leb ndax boru Sénégal dafa bëri wala yéen bu ngeen ñëwoon tey tamit si président yi lépp si ngeen bokk. noonu lépp mënut a ñàkk mais lépp boo koy def il faut mu nekk benn endettement bu raisonné ñu fexe ba la ñuy leb ñu dugg ko ci projet yoo xamante ni c'est des projet sociaux à fort impact mooy wàllu pêche bi ma lay wax nii ñu fexe ba développer une industrie autour du pêche wàllu éducation tey boo xoolee tey dans la banlieue dakaroise dans les banlieues. boo xoolee da ngay école salle de classe yoo xamante ne dina def plus de cent élèves tey on doit développer ces infrastructures scolaires mooy la question de la justice sociale bi ma doon wax il faut ñu fexe ba école sénégalaise mu jël ko def ko mu nekk une priorité fexe ba eh, jàngalekat se sentir que li muy def wax dëgg yàlla nguur gi mi ngi ci ginnaawam. ñu fexe ba également ba tey suñuy doom. jàng fii ba am ay diplôme ñu am les possibilités également d'insertion et d'emploi au niveau national loolu vraiment bokk na ci ay alternatives yi fépp Tawfekh di proposer mais pour te dire que tey euh, l'agriculture c'est vraiment le centre de nos priorités pour développer ce pays parce que en l'état actuel tey ku ne xam ne ne tey mënul nekk ci dëkk boo xamante ni on a quatre-vingt-quinze pour cent des superficies qui dépendent de la pluie. Hmm. tey bu ñu amee une bonne politique de maitrise de l'eau tey en termes d' absorption d' emploi mën nañ d'ici deux mille vingt neuf Fepp Tawfekh propose de créer deux millions d' di si accord d'ici d'accord jërëjëf euh, Abdoulaye ndaw yow nga ingénieur agroéconomiste euh, jiite cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, fépp parti fépp taw fépp bu docteur Cheikh Dieng rapport Cour des comptes bi yéen est-ce que yëkkati nge yëkkati ngeen si seen seen kàddu ci rapport bi mu def ci fond Covid waaw parce que ñu rapport boobu liñ ci wax rek mooy li ci ñëpp wax parce que tey mille milliards ñu jël ci budget Sénégal Sénégalais yi également am la bonne volontaire ñëpp cotiser ci participer ci ñu jël alal jooju jox ko nguur gi ne ko doxalal parce que dañ nekk situation de crise ñu li ñu gis mooy eh, li rapport bi révélé ay surfacturation ou même des commande non livrées commande des vaccins périmés donc loolu yëpp mu nekk ay xeetu Euh, manquement yoo xamante ni constaté nañ ko dans la gestion des deniers publics ma je pense que ñi nga xamante ni tey cité nañ leen ci dañoo war a répondre ci yoon loolu mooy li fépp taw feex mais gisoo est-ce que gisoo ku moom moo am ndey ak ku moom moo amul bi amee ah, loolu may li ma la wax ce matin c'est une justice à trois vitesses une justice pour les politiciens si vous êtes dans le régime vous êtes protégé quand vous êtes dans l'opposition mais ñu dal sa kaw loolu moo fi am mooy li ma la wax instrumentalisation de la justice loolu tey boo xoolee euh, en interne au sein de la justice wax nañ ko en externe également les leaders politiques boo xoolee le cas Karim Wade euh, Khalifa Sall voilà ak Ousmane Sonko en vue ci ngay xam ni euh, y a une instrumentalisation de la justice loolu moom Sénégalais yëpp ko xam. léegi euh, dernière question bi rek euh, Abdoulaye Ndaw ndax waxtu yi ma ngi jeex euh, yéen waa parti fépp fépp Tawfekh yéen a ngi waajal élection présidentielle actuellement tey nii si yan yi ngeen nekk. tey mën naa ne dañuy ñu ngi ci vente des cartes et ci processus. ñaata carte ngeen xalaat jaay. ñun xalaat ñoo jaay presque six cent mille cartes. mu au niveau national. moom ngeen bëgg jaay. loolu danañ ko jaay au niveau national commencé nañ ko déjà may wax yow nii on a une production de plus de deux cent mille cartes qui sont distribuées. deux cent mille cartes tout non commencé nañ ko jaay mi ngi nekk au niveau national fi mu toll nii c'est le premier jet mais six cent mille cartes danañ ko jaay d'ici le trente juin incha allah. Hmm. te déjà ku ne Cheikh Dieng ci wàllu processus électoral xam na wàllu parrainage xam na. ñun ñu ci préparer wu en conséquence pour anticiper wu waaw donc sur ça loolu may wax ni Sénégalais yi fépp taw feex est-ce que am ngeen ay fonds aussi pour def euh, campagne bu normal il les fonds c'est les militants c'est les sympathisants du parti tey ku ne xam ne ni tey Sénégalais yi les plus jeunes maintenant se sont engagés en politique il y des cadres dans le parti il y a des artisans des travailleurs de l'économie informelle mais ku ci nekk ci ñoom tey mi ngi jël dooleem di def ci parti bi pour préparer parce que ku xam ne ni élection présidentielle dafa laaj préparation dafa laaj ay moyen nous sommes conscients de ça. léegi léegi bu dee bu dee dañ leen dàq ci parrainage bi ngeen def. ñun mënuñ ñoo daq ci parrainage Sénégal élection présidentielle 2024 ak fépp tawfeex xam-xam biñ ci am ak expérience biñ ci am. suñu leader muy docteur Cheikh Dieng ñun jël nañ toutes les mesures pour anticiper à ça. mais dàq parrainage moom xel xalaatu ko ndax ñun ci wàllu expérience ci parrainage ci wàllu processus élection mbir fépp Tawfekh on a suffisamment de cadres qui sont capables euh, vraiment de veiller à ça pour que docteur Cheikh Dieng sa candidature mën a jàll ak ñu am le nombre de parrainage qu'il faut et les moyens qu'il nous faut pour ñu mën a dem élection présidentielle remporter ko remplacer président Macky Sall. d'accord jërëjëf euh, Abdoulaye Ndao ñu lay sant di la gërëm. mais maa ngi lay sant di la gërëm euh, Abdou Khadre donc di remercier ces auditrices yi ak seen auditeurs yi. Mhm. di nuy vraiment tous les militants et sympathisants du parti Fepp Tawfekh les militants de de Bouteyine daal le Mbane di nuyu également les militants du Balantacounda également du Fouladou di nuyu militants. département Guédiawaye voilà partout au niveau également de la diaspora di leen wax ni euh, ñu ngi préparé wu euh, ñu ngi waajal euh, tournée bi ñu ngi koy dinañ ñëw ku ci nekk ci sa localité président semaine passée lu jógee zone nord je pense que la semaine prochaine dinañ nekk dans la zone de Touba ak dans la zone du Ferlo pour aller rencontrer les militants à la base également euh, renforcer euh, les cellules existantes ñu giseek président saafoonteeg moom parce que ñun programme bi ñu defar tey boo gisee tey suñu programme tey bind nañ ko ba mu pare mais euh, suñu approche mooy on va faire participer à tous les Sénégalais dans l'élaboration de notre programme politique. aujourd'hui programme bi jébbal nañ ko suñuy militants jébbal nañ ko suñuy sympathisants fu ñu dem waxtaan ak ñoom ñoom ñu liir ko dinañu defar un retour. pour wax ñu ban xalaat lañ am ci fànn bu ne ci programme bi pour ñu mën a am un programme final boo xamante ni Sénégalais yëpp dinañ ci participer dinañ ci mën a contribuer incha allah pour 2024 ñu fexe ba docteur Cheikh Dieng nekk président de la République du Sénégal. Euh, jërëjëf euh, Abdoulaye Ndao di ingénieur agroéconomiste moom la ñu invité woon tey ci rajo Réew mi FM. ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck. Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi moom Abdoulaye Ndaw ingénieur agroéconomiste moo nekk coordonnateur cadre fépp Tawfekh moom la ñu invité woon tey mbokk yi kon ñu leen di jox di daje samli bi di ñëw ci beneen jotaay jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm tay jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm tay jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm tay jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm tay jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm tay jërë ngeen jëf jàmm